jamonoy jaam xëyee jaam bu jigéen nañu koy waral laabloo ba xam ne ëmbut ak li ñuy wax mu waabaxa daañu ko leeral moom lay wax ci bunt bi jaam bu jigéen ku ko moom moom gu yees da nga ko war a laablu mu wóor la ne ëmb nekkul ci moom benn mu gis baax benn yoon baa bu fekkee du gis baax ñu bàyyi mu am ñetti weer moo xam nag moom gu yees gi ak jënd la mbaa leneen doonte sax jamono yi jaam xewee daa nangoo jaam bu jigéen ci ab jaamum bu góor faaw mu war koo laablu boroom takk nag ab jaam bu jigéen bëgg ko def soxna dañ ko wax ne ko faaw nga laablu ko ndax bala ko takk faaw ñu jaarale jaam bu jigéen fu mu war a jaar door ko koo may soxna waaw nag moo tax kon bi ko mayee soxna moom duñ ko wax ne ko faaw nga laablu ko door a sañ a jotee moom ñeen sart mooy tax ku am jaam bu jigéen am gu yees mu war koo laablu ba ci jëkk mooy wóoru ko ba xam set na ci ëmbam déet bu ko wóoroo ne set na ci ëmbu nit ki dañ ko koo dénkoon baa ñu tayle ko ko daawul génn daawul dem fenn ab sangam itam daawul ñëw ci moom te gisoon na mu gis baax benn yoon mu wóor ko ne ëmbut kon bu ko jëndoon di jar mu di ko laablu ndax lañ soxla mooy wóor ne ëmbut moom wóor na ko saat ñaareel mooy bu mu doon koo xam ne amoon na sañ-sañu joteeg moom njëkk mu koy moom moom gu yees mel ne dafa takkoon soxna soo xam ne jaam la xam nga ne kon doon nga mu doon soxnaam day tax mu sañ a joteeg moom boo bëti koo jënd ko nag duñ ko wax ne ko duñ ko jëndee faaw nga di ko laablu foofu jarul laablu ñetteel mooy bu koo xam ne su ko moomee it du sañ a joteeg moom bu jëndee jàmbu jigéen boo xam ne araam na ko ci jege askan ba nampaale ni ki jàmbu jigéen boo xam ne ndeyu soxnaam la kenn du ko wax ne ko laablu ko ndax ndegam suñ si joteeg moom rek dañ ko wax ne ko laablu ko ñeenteel nag mooy jàmbu jigéen boobee ñu mën a joteeg moom bu amoon ñeenteel mbaa juróom nga xam ne kenn mënta joteeg moom dañ ko wax ne ko laablu ko am kiis mooy koo xam ne amul taar li ceeb ku ko moom itam doo faral di joteeg moom mu ne nag bu ci sart yi dajee ku am jàmbu jigéen rek moomeel gu yees war nga koo laablu doonte sax amul taar noonu ñu ko waxee nga xam ne comme ça moom it door joteeg moom doo faral di joteeg moom moom mu doon ko am taar ñooy moom bu doonoon sax xiig maanaam jaamu jigéen boo xam ne boo dee xool ndaw ga ca sawukaay ba ma nga ca dañuy wax ne mënees naa joteeg moom ba mu ëmb te du tee xiig ga xiig ga maanaam ndaw ga nekk ca loolu moo tax kon ku am jaamu jigéen boo xam ne xiig la itam maanaam ndaw gaa nga ca du tee mu war koo laablu bu ca sart yi dajee wala dafa amoon jëkkër jëkkër ja fase ko te jotuta wéet ak moom xam nga ko lu may jëkkër jëkkër ja fase ko te wéetut ak moom du iddawu waaye nag bu dee jaamu jigéen boo xam ne daa amoon jëkkër jëkkër ja fase ko ku ko moom moom gu yees mel ne jënd ko mbaa ñu may la ko faw rek nga war koo laab lu njëkk ndax buñ ko doon may jëkkër moom kenn du wax jëkkër ja ne ko laablu ko waaye nag ku ko moom moomeel gu yees moom nga xam ne du ab sëy ak moomeel la da nga ko war a laablu ba tey ku nekk fii moom koo xam ne rafetu ci njort mel ne kookee ñu ko dénkoon baa ñu tayle ko ko waaye mu gis ne moom daana génn ba ab sangam daana fi ñëw boobu ko jënd ko faaw rek mu war koo laablu ba tey bu fekkoon ne jaam bu jigéen ba boromam nekku fi sax bañ naa mën naa joteeg moom mbaa ñu ne boromam kat amut sawukaay mbaa waa yàlla day ko ñu gubbi mbaa ñu ne dafa doonoon jaam bu jigéen boo xam ne doonoon jot boppam far na tëli ca jot ga boppam delluwaat di jaam bu sotti ab sangam moom ko yëpp faaw rek laablu ga di ca mën a ñàkk bu joxoon njëkk kenn ne ko boo demee jëndaaleel ma ab jaam bu jigéen su fekkoon ne kookee moo ko jënd andi ko mbaa andiwu ko waaye kam ko jox mu andi ko moom moom mii moo ko wax ne ko joxal ma ko diw mu andil ma kon du aajowoo mu di ko laablu waaye nag ko yóbbante ne ko jëndal ma jaam bu jigéen kooku andiwu ko jox ko keneen mu andi te keneen kookee amu ci ndigal maanaam amu ci ndigalul ki doon jëndlu ka doon jënd rek mooy jekki-jekki yóbbante ko kooka faaw rek mu war koo laablu moom mi doon jëndlu ne boo amee jaam bu jigéen boo xam ne jote nga ak moom boo ko bëggee jaay day mbaa nga mën ko maye mu sëy ndegam jote nga ak moom war ngaa bàyyi ba laablu ko ba mu wóor ne ëmbewul ci yow waaye doo sañ jékki-jékki rek jaay ko mbaa nga may ko jëkkër te laablu woo ko ba tey bu la wóoree ne sa jaam bu jigéen bi am na ko joteeg moom ci jaawale rek mbaa sax ci njaaloo mbaa daam ku la ëppoon doole nangoo ko ci yow waaye diggante ba mu ko yóbboo bi mu dellu see jote xaj na fa yooyu yëpp faaw rek nga war koo laablu door a mën a joteeg moom woo bil xétqi ak ca gore ga da koo boole ci yi sabab tey waral ak laablu jébéer boo xam ne dañ ko goreel mu bëgg a sëy ci keneen ku ko teg ka ko goreel faaw dañ koy laablu njëkk bu doon door a noppi ci laablu wala muy door a génn ci idday passé mbaa faatu jëkkër mbaa ab sangam dem lu yàgg-yàgg jutiwut ak moom dara ulbatiku ne goreel naa ko bu sang ba faatoo rek mbaa sang ba goreel ko faaw day sos laablu gu yees door gam doon door a génn ci laablu wala ci idda su tee rek bu sang ba faatoo mbaa sang ba goreel ko faaw mu sos laablu gu yees kon ne mën ngaa gàttal ne umul walat moom faaw rek ñu war koo laablu bu sang ba faatoo mbaa sang ba goreel ko ku bokkul ak umul walat moom su fekkee jotoon nañ koo laablu ci njëkk loolu mbaa iddaam doon door a jeex du jara laabluwaat bu fekkee nag jot na ko woon a laablu nekkutoon ci idda ba muy jeex nag kon dana aajoo buñ ko goreelee mu laablu laablu gu yees biñ lay jógee bi warees na koo laablu kon men mbërë rek mooy bu gisee baax benn yoon rek mooy doon ak laabloom ndegam daa bokk ci ñuy gis baax yi tax laablu ni nga ko wees woon mooy min milkin aw bayhin aw xitqin bu fekkoon ne nag jóbéer bi daa gis deret rek kenn ci yi nga xam ne ñoo koy taxawal a laablu daal di koy dal mu nekkoon bu fekkee ne la ëpp solo ci deret ja jotagut a génn ba jàll day doyloo rek deret joojee du jar muy xaar ba mu jeex mu cay tegaat jeneen deret jooju doy na ak laablu bu fekkee ne nag la ëpp ca deret ja ëpp ca doole daa jàll ba noppi nag li koy taxawal a laablu dool koo dal su boobaa kon day bàyyi ba deret joojee jeex mu tegaat ca jeneen ci niñ ko waxee tëkk ko ci fan yee jébéer bay am deretam jeex da ko takk rek ci waxtu nga xam ne la ëpp doole ca deret ja ca lay jàll na ba noppi lay tax mu war a laablu door koo dal du doyloo mbërëb moomee day bàyyi ba jooja jeex deret jooju jeex mu gisaat jeneen nag daa mel ni nag saraabee ni nga ko defee ñetti tomb moom buñ ca àndoon mooy gën a yomb ba takk moom moom daa wax ne bu fekkee ba mu gisee deret laata muy am benn fan rek la ko taxa war a laablu da koo dal mel ne ñu moom ko moom gu yees kon day doyloo deret joojee bu fekkee ne nag wees na benn fan ba dugg ci bisub ñaareel bu waaye mëtagut ñaari fan foofu la ñuy wóotee ci ndax dana wàññi deret jooju am du ko wàññi waaye bu demoon moom nag ba am ñaari fan yu mat doole gis deret ji kon du wàññi waali moom deret joojee faaw day xaaraat jeneen ki jaay jébbee bi ñu wax ko ne ko bala nga koo sañ a jaay da nga koy laablu njëkk te kay jënd itam ñu wax ko ne ko boo jëndee war laablu mu ne ñoom ñaar mën nañoo bokk déggoo ci jël jébbéer ba teg ko ci loxo yi ku ñu wóolu ba mu gis baax mu di ak laablu mu daal leen doy ñoom ñaar ñëpp mu ne jébbéer ba war a laabloo gis baax bu fekkee ne waxtoom ko war a gis da ko caa gisut te moom ndawut naaguwut ci gis baax ba waaye daal gisu ko ca mu ne doonte sax ak nàmp la tax wala tawata tax mbaa boog daa amee deret jàngoro joo xam mënu koo xàmmeeg deret dëgg-dëgg kon ak laabloom yetti weer lañ koy jàppe dañ koy def yetti weer ba tey it koo xam ne daa ndawee ba du gis deret mbaa magee magee ba du ko gisit ba tey yetti weer mooy doon seenug laablu loolu daa dellu ci jébéer ba nga xam ne daa àgg ci waxtu ma daan gis baax te gisu ko mbaa mu amee dereti jàngoro te mën koo xàmmee deret dëgg-dëgg kooku lan bu wóoluwul boppam ci ëmb baa jigéen ñi koy xool wax ne ah kii day nun dañ cee wóoloo di ko ëmb kon ñetti weer yi du doy na bàyyi ba am juróomi yeenti weer kon juróomi yeenti weer mooy doon ak laabloom mu ne ki ñu waxoon ne na laabloo juróomi yeenti weer ndax daa wóolu di ko ci boppam ëmb baa jigéen ñi koy xool ñaaw ci njort ñu daa ëmb bu fekkee ne laata am juróom ñeenti weer mbaa ba juróom ñeenti weer yi matee rek amatul lu muy wóolootiku kon mën naa daal di wuti jëkkër su fekkee nag juróom ñeenti weer yi mat na waaye teewul ba tey mi ngi ñaaw njort baa jigéen ñi koy xool ñu ngi naa kii day wóoluwul ko ci ëmb kon dañuy seet ba xam na meloon daa yokk am daa wàññi kumbaa na meloon rek la mel su fekkee ne daal na meloon yokkuwul dara dara kon boo amee juróom ñeenti weer yi rek moom mën naa daal di wuti jëkkër waaye nag bu fekkee dafa yokk mel ne bii ba gën a rëy ñu gën caa ñaaw njort ci ëmb moom faaw mu toog rek ba àgg ci gën caa yàgg jiru ëmb day wane ne am doom it daa bokk ci ak laablu maanaam jébbee ba ñuy laablu bu fekkee daa tollu ci ëmb bu amee doom rek am nga doom moo di laabloom li ci boroom ci it da nga xam ne bu doom ja génnee lépp lépp ba bu dee ñaari doom doom yëpp yëpp génn ba desul dara bu dee ci kii laablu itam ci fii bu doom ja génnee lépp lépp ba bu dee loo benn lépp génn ci biti rek laablu ga mat na bu ñu nee jébbéer bii warees na koo laablu nag kàkku moom dana araam mu bànneexu ci moom. moo xam ci jote dëgg-dëgg la moo xam ci bànneex bu ndaw la ni ki fóonanteeg donjoog yooyu dana araam mu def ko dara ci yooyu te bàyyiwul ba laablu ga mat mu ne koo xam ne dafa yore woon ab jébéer mu mukk waaye daa mel ne dañ ko koo dénkoon mbaa ñu tayle woon ko ko mbaa mu ko doon jënd njëndum xiyaar maanaam njënd moo xam ne njaay ma doogagutoon bu fekkee diir ba jébéer bu nekkee fi moom daal gis na mu gis baax mu wane ni ëmbut kon dëgg moom dawul génn ab sangamit mooy kaku moom itam daw ñëw ci moom te gis na rek mu gis baax benn yoon kon soo wëlbatikoo moom ko day doyloo rek am nga amoon baax mu di ak laablu di jar muy laablu laablu gu yees waaye nag bu fekkee daanu génn ba ab sangam daanu ñëw ci moom ba loolu di ko ci ne mën naa am mu ëmb kon laablu ga du mën a ñàkk ne ku am jóbee boo xam ne daana joteeg moom bu ko goreelee ba noppi door koo takk day du jar mu di ko laablu ci gannaaw bi mu ko takkee ndax ndegam moom da ko moomoon daan joteeg moom kon moomeel ga taxoon na moom sañ-sañu joteeg moom kon bu ko bu ko goreelee walbatiku takk ko jar mu di ko laablu waaye nag bu fekkoon daa amub jébbi rek daal di koy goreel noonee su ko bëggee takk moom faw mu laablu ko wala soxna si mu yoroon te jaam bu jigéenu jaambur jaambur boobu walbatiku jaay ko ko nag mu daal di koy moom nga xam ne kon bu mu séy ga dañ na tas na bu mu njaam moo fi des kooku doon ci sax jotiwutoon ak moom dara itam mën naa jëkki-jëkki tàmbalee joteeg moom ci kaw moom gi mu ko moom di jar mu di ko laablu ki yoroon soxna soo xam ne jaam la di jaamub jaambur mu gannaaw ba mu wéeteeg moom nag ci kaw soxnaam la mu wëlbatiku jënd ko mu nekk ak moomeelam nga xam ne kon buumu sëy ga tas na ndax jënd gi mu ko jënd mu soppi koog moomeel nag laata muy jotee moom rek mu daal di koy jaay mbaa mu goreel ko mbaa mu faatu mbaa fekk mu doon jotoo moom ci boppam far tële ci njotoo ba sang ba daal nangu kooku doonoon soxnaam mu ne bu fekkee ne ba kenn ci di xew booba qabla waxtil milki la ba gannaaw ba soxnaam si doonee ak moomeel daal juutu la jotee moom dara kenn ci yéen yi daal di xew al bayon mbaa al xitqu mbaa al mawtu mbaa al xajisu mu ne kon ku moom jaam bu jigéen boobee mbaa nga takk ko waaw nga bàyyi ba mu am yaari laab yaari laab ya mooy doon it day tasuk sëy ba tasuk sëy bi mooy ki takkoon jaam bi muy soxna daawal bëtiku woon jënd ko moom ko bu mu ko jëndee moom ko nag loolu mooy tasug sëy ba ndegam nag jotu te joteeg moom far kenn ci xew ka takk jaam ba mbaam moom ko daal na ko bàyyi ba mu am yaari laab ñu jàppe ko muy idday tasug sëy boobee kooku nga xam ne soxnaam dafa doonoon jaamub jaambur mu wëlbatiku nag jënd soxna sa mu doon ak moomeelam su fekkee daa joteeg moom ba àggal nag door koo jaay ba mbaam door a faatu mbaa mu dool tëlit ab sangam nangu ko kon ku jënd jébéer boobee mbaamu donn ko mbaamu takk ko mbaamuy sax ka ko nangoo ci këttale da koy bàyyi rek ba mu gis baax benn yoon mu daal di doy dangaa tuddoon yent muy albayhu alxitqu almawtu ak al intisaahu nangu mu ne nag bu fekkoon ne ci amoon soxna suy jaam walbati ku jënd ko laata muy joteeg moom jaam bu jigéen boobee dafa gis baax benn yoon da mu gis na baax benn yoon keneen door koo jënd dañuy wàññi gis ba mu gis baax benn yoon daal di wax nag ka ko jënd mbaa ka ko donn mbaa ka ko takk ne ko da mu gisoon na baax benn yoon da ngay bàyyi mu gisaat baax yaar yoon rek mu daal di doy su fekkoon ne nag dafa gis baax yaari yoon mooy boo delloo cosaan ci amoon soxna soo xam ne jaam la lu batiku jënd ko moom ko laata mu jotee moom nag gis na baax yaari yoon moom jaam bu jigéen ba mu door koo jaay wala mu door a gore wala mu door a faatu ku takk jaam bu jigéen boobee mbaa nga jënd ko ci misaal mbaa nga moom ko daal moom ndegam gisoon na baax ñaari yoon rek te day xaaraat mu gis baax benn yoon mu dig laablu rek mu doy nga tuddoon yent albayhu alxitqu almatu ak xajisul mukaatabi mu ne nag alxitqu yee moom bu fekkee ne mooy la xew dana aajowoo nga xaajale ko ndax jébbal boo xam ne daa gore daal di gis baax mën ko ne ko ëmboo ndegam nekkul umulal rek du aajoo laabluwaat bu nekkoon umulal moom nee nga woon faw day sos ak laablu muy xaar ba gis baax benn yoon doon sax da door a génn ci laablu wala da door a génn ci idda ni nga ko weesoo woon ci gannaaw bàyyi su jëlee jëbbóor doom ji góor daal di koy wóorlu laablu ko ba wóor ko ne amut mu daal di joteeg moom dañ koy daal di xëy ma ne ko fayas doom ji góor ji njëgu jëbbéeram bi ndax dal nga koy féetewoo dal nga koy moom bu fekkoon nag doom ji góor ji joteeg moom di daal di araam ci ñoom ñaar ñëpp li wax ni kay mooy fekkutoon doom ju góor ja joteeg jébbéeram boobee kon bu bàyyi bi laabloo jébbéer ba joteeg moom dañ koy wax ne ko yaa ko moom fayas doom ju góor xayma ji ndax day daal di araam ci doom ju góor ji fekkoon doom ju góor joteeg moom moom bàyyi bi joteeg moom noonu day araam ci ñoom ñaar ñëpp waaye nag nee nañu ndegam bàyyi bi mu joteeg jébbéer doom ji xañ na jébbéer bi doomam joojee fekk itam doom ji góor jote woon nag moom bañ ne aram nañ ñoom ñaar ñëpp du tee bàyyi bi fay ko xayma ja ndax moo yàqal doom ji jébbéeram boobu mais boo doon jaay jébbéer koo xam ne moom da ca am xiyaar mooy moom miy jënd am na sañ-sañu seet ba xam dana wéyale njënd bi mu déet mooy bi xiyaarin la su ko delloo see ne la jëndatuma du jar ngay laablu jébbéer boobee ndax dem nga nga xam ne moom la këram jënd dem ak moom gannaaw ba mu ñëwaat ne jëndut dañuy sopp rek laablu waaye laablu ga du àgg ci war mooy wanundi ba mu ne boo amee jaam bu jigéen boo xam ne dafa ëmb ci yow ba noppi nag am ko jotee moom ci jaawale mbaa ci njaaloo mu wër la ne moom kee jaawale na ko mbaa kee njaaloo naa ak moom waaye fekkoon ne mu ëmb ci yow moom it dañuy sopp rek nga laablu ko waaye laablu ga du nekk lu war daa mel ne nag da ngay bàyyi kon ba mu am doom rek ngay bàyyi kon ba mu am doom almuwaabaha mooy kii bëgg a jënd jaam bi te fekk na borom jaam bi moom nee na daana joteeg moom doonte sax amul taar waaye moom nee na daana joteeg moom mbaa boog muy borom taar boo xam ne daal moom boo xool ne daanaa joteeg moom it ku ma saam ku mel ne moom moom daa nga joteeg moom kon day war ñu tërtërloo ko mooy seet jigéen joo xam ne wóolu nañ ko ñu bàyyi ko fa moom bu demee ba gis baax ñu xam ne amul bu gisul baax ñu xam ne daa ëmb ëmb dafa doon sikk ci jaam moo tax nag ñu daan def tërtërloo googu nga xam ne su ëmbee ka doon jënd loolu sikk la mu bàyyi bañ a jënd bu ëmbul nag njaay ga door a dog bu ñu amee jigéen ju ñu wóolu moo gën waaye nag mënees naa seet góor goo xam ne am na soxna mbaa njaboot bu jigéen goo xam ne daañu mën a saytu jébbiir bi ñu teg fa moom di ko tërtërloo waaye bu dee góor kese goo xam ne amul njaboot gu jigéen moom du ko mën taamuñu nag jébbiir boobu ñu tërtërloo aji jaay ji yore ko mbaa koy jënd yore ko dañoo bëgg ñu seet kenn ku ñu wóolu te kenn ci ñoom ñaar bañ koo yore kenn ci ñoom ñaar yore ko moom ba mu yem ci sip mooy kookee doon ku ñu wóolu ku day sëkk waaye su dee ku ñu wóoluwul sax day àgg ci araam suñu bokkee juboo ci nañ ko teg ci loxol diw ñoom naa ñëpp ñoo juboo ci loola kenn ko mënta jekki-jekki ne dañ koy jëlee ci kooka lu may ko ci def ànd ci ak moom buñ bokkee juboo jëlee ko ci kooka nag yóbbu ci keneen baax na waaye te mënta doo ko ci ne waaw dañ koy jëlee ci kooka te fekkoon ñu juboo ci kooka la ñu sukkandikoo mooy dañuy teg jéego ba ñu tërtërloo mu yore ko seet ba xam gis na deret am déet am naam ambut kenn rek doy na ca muy góor muy jigéen dañu sart ne faaw day ëpp kenn ci wax ji gën a wóor jébéy bu ñu tëtërloo wax ci njëg ba noppi buñ sarte ne faaw i jën bi daal di fay njaay ma daal di yàqu ndax ndegam xamuñu ba xam dana ëmb ki doon jënd bàyyi wala du ëmb mooy leen jënd moom bu ñu sart ne faaw dañuy teewal njëg gi rek doonte sax nañ ko waxe woon defuñ ko noona du tee njaay ma yàqu na mu ne jébéer boo xam ne cib sëy la nekk dañu xam ne moom ku nekk cib sëy di këram am na sañ-sañu di joteeg moom te ku ñu joteel moom ëmb lu ca mën a am la kon nag jébéer boo xam ne bu toll cib sëy la kenn du ca def tërtërloonte jébéer ba ñuy jaay itam bu fekkee daa ëmb ëmb bu fés duñ ca defu tërtërloonte ndax dañu xam ne moom dañ doon seet ndax am na am ambut moom ëmb na bu wér wér jébéer boo xam ne it dafa nekk ci idday passé mbaa idday faatu idday fase ga mbaa idday faatu ga doy na ak laablu kenn du ca tudd ak laablu kenn du ca tudd mu waa baax jébir boo xam ne itam dafa njaaloo njaaloo goo xam ne gu fés la ñu xam ne moom bu amee doom doom ja kenn du ko féetale borom jébir bi kenn du ko féetale ko jënd dañ koy féetale njaaloo ko jàppee ko doomi njaaloo jébir boobu di su ca tortorloo waaye nag moom ni ko jënd moom dana ko war a laablu su fekkee ne gis na baax benn yoon laablu ga mat na bu fekkee daa am bu ci njaaloo googee nag am doom rek mooy tax laablu ga mat la mu weesu ne du am mu waa baxa la ne wóote naag nag jébéer boo xam ne da koo jaayoon da ko jëndee nag gis ci sikk delloo si ko mbaa njaay ma ci boppam mu baaxut ñu tas ko jébéer ba dil si ci moom wala xàcc moo tax mu dil si ci moom daa jubóog ka jëndoon delloo ko njëkk mu delloo ko ak jaamam mu ne bu fekkee ne ka jëndoon li mu jëndoon demoon ba dugg ci garanteem nga xam ne fekkee ne doon tërtërloo jébéer bi gisoon na deret ba nga xam ne kon léegi moom mi nga xam ne moo doon jënd njënd mi dog na mbaa jënd jaay ga ci boppam moo baaxutoon waaye nag li tax ka jënd garanti la mu jënd àggoon nañ ca mu ne kon ak jënd ci ndegam dem naag jébéer bi diir boo xam ne ak jote xaj na ca wala jot nañ ne moom ak jote mën na ca am mbaa am na ca sax kon faaw jébéer bi bu defee nii ci boroom bu dee moom moo ko bëgg a téye faaw mu laablu ko door ba mu wóor ne ambut mu door a mën a joteeg moom li mu ci teg moom daa mel daa bëgg a wax ne ndegam dafa nekkoon jébéer bu amee daraja bu ko bëggee jaay moo kam koy jaay faaw ñu def ca mu waa baxa maanaam teg ko ci loxoy ku ñu wóolu ba mu wóor ne moom mii ambut ndax dafa daaneele fa xalihim istibraawu fil waxshi wala mu waa baxatu fil aliyati loolu nag mooy daa fekk ka jëndoon dem ak moom diir boo xam ne jote ga xaj na ca waaye bu fekkoon ne ka jëndoon jotu ca dem ak moom du jar ak laablu du jar mu waa baxa mu ne li mu bëgg a wax mooy su fekkee nga jëndoon jébéer bi demoon naa ak moom ba kenn gisatu ko mu delloosi ko nag ci kaw gis ci sikk mbaa ñu ne njaay maa baaxut ñu war koo tas mbaa mu ñëw rek ngir xàcc ko mu ne kon ki jaayoon jóbéer bi war na koo laablu ndegam jort na ne ki jënd ba mu dem ba kenn gisatu ko jote naag jóbéer bi mbaa sax jortul ne ki jëndoon jote naag moom waaye daa fekk nag jëmmi jóbéer bi duggoon ci garanteeg ak jënd ji mel ne li tax mu di ko delloosi mooy jëmmi njaay mi leen ne moo baaxut te fekk na moom mu téye woon ko téyeeg nar koo moom yoola kon dugaloon na ko ci garanteem mbaa li tax mu di ko delloosi day sikk mbaa bëgg a xàcc waaye jébéer bi di sonn deret ñu xam ni ëmbut ba mel ne kon duggoon na ci moomeelu aji jënd ji lu ci am ci yooyu rek bu jébéer bi delsee ci loxol aji moom ji mu war koo laablu waaye nag moom tuddut foofu al muwaabaxatu ndax dane baatu muwaabaxa bee ñu tudd ak laablu rek lañ ci jublu